ñu leen di sant di sant Walfadjri <laughs> ñu ngi sant temps yu moo jeex moo tax te dañu war a dalal ki nga xam te moom mooy suñu gan ñu jëli musique léegi léegi. ayca voilà ay ci musique lañu war a waxtaanee euh, Mounas ñi ngi Mounas. Mounas. Ah. ñi ngi en direct nii. Euh, cool dalal ko. Euh, ay ca cool. cool dalal suñu gan. waaw mi ngi noonu. nuyoo yëpp si biir si la bokk. waaw mi ngi noonu c'est-à-dire mën nañ ko comprendre. ziar bu baax mbaa yaa ngi si jàmm madame Mbacke. madame Mbacke. waaw yaa nañ la bu baax. ay ca mi ngi noonu mu mel ni suñu gan may wax léegi ne kuy defar guddi du yàq bëccëg ñoom c'est-à-dire heure boo leen amee da leen koy santee mm-hmm. parce que ñoom daanaka li ci gën a bari guddi gi mooy seen activité mm-hmm. ñu ngi ci soirée ñu ngi ci programme yi donc c'est pas évident mm-hmm. déjà woo téléphone sax ne ko bu dee da ngay nelaw jugal <laughs> parce que da leen di comprendre quoi mais nag ñu ngi kontaan parce que man ak moom wax dëgg neex yàlla yàgg na yàgg goo xam ne am na kóllëre boo xam ne ñeme naa ko sax fekk ko tey tey tey mën na ko tey laa la soxla ci télé mu ñëw ah, waaw ñu ngi lay nuyu Yves di la dalal di jox sa wàcc waaye ci Walf euh, TV waaw salaamaaleykum waa ginnaaw bi ma sant yàlla mm-hmm. jullit na Mohamed mm-hmm. gërëm sama ñaari waajur mm-hmm. sant waa kër maam Cheikh mbay yi nga xam ne foofu laa bokk macha allah di nuyu kilifa diina yépp nag rawatina sama kër maam Tiwaawoon kër Cheikh Moroba Gueye ndax Cheikh Moroba mooy sama maam mhm. di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu waa kër Serigne Touba waa kër Siraj mhm. Malick Baye Laay ñëpp daal <laughs> maa ngi nuyu madame Mbacke mhm. di ko jox cëram bu baax a baax macha allah parce que jigéen la mais ku ne xam na ni fi ne moom mooy kilifa plateau bi ah, nuyu Mounass Balde nii flayé maam mooy Flo Balde Bamma bu fi bëri nag dama wax la kii nga nga nga bu ko fi def <laughs> waaw vraiment di gërëm kuul suma frère nga xam ne lu mu nekk rek. boole na ma ci. su mm-hmm. mu nekk woon ma fa. Mm-hmm. te man ak moom yàgg nañ. Mm-hmm. waaw jërëjëf di nuyu Alioune Mbaye suma frère. Uh-huh. moom suma suma jarbaat la sama lépp la. dañoo bokk Tivaouane bokk bokk Louga. waaw bokk Pikine. macha allah bokk Pikine c'est un plaisir vraiment ñu dalal la ci plateau Petit Déj alors sans plus tarder ñu daal dugg ci waxtaan bi ko. mi ngi noonu euh, Yves euh, bu ñu ko dalalee ci plateau bi je pense que du ñu du jar ñuy dellu si ci jaar jaaram parce que ñëpp xam nañu wax dëgg neex yàlla fi mu ak li mu liggéey ci musique sénégalaise mais juste lii xaw a maanaam jaaxal nit ñi ci Yves Niang mooy constance am maanaam ñu ci ñu générationnel ñu ci bari. Mm-hmm. wàcc nañu terrain bi. Mm-hmm. mais moom dafay ne rek. dafay téye tout le temps maanaam euh, yoonam euh, bëggoon nañu xam euh, Yves lan moo ko may loolu c'est-à-dire naka nga def ba mën a téye ma affaire bi ba léegi wàccul. waaw cool maa ngi lay gërëm ci question boobu. Mm-hmm. xam nga musique boo koy def. da ngay sóoraale lu bari. tout fait parce que soo jugee rek nga way mbalax. Mhm. yem ci mbalax wala nga def afro wala nga def jazz wala techno wala dara. Mhm. foofu nga yem. Mhm. xëy na per loolu noonu bu jeexee ci yow rek jeex na. jeex mais ñun dañu jaar ci simb jaar ci ngénte jaar ci kasak jaar ci mbapat dugg ci musique bi nag am ci dara. yooyu noonu soo ko amee mën na la gunge sa carrière yëpp parce que man période bi ma toll nii. su ma defee traditionnel rek ba ba ma fiy jógee mën naa ko eggale. tout parce que musique du dee. te jàng nañ ko bi ñuy way simb bi ñuy way ngénte musique yooyu ñu doon def. Mhm. moment bi man man na ma téye. Mhm. même bu nit ñi di buuxante ci mbalax bi su ma defee traditionnel mën naa ci génn parce que may indee way démb mhm. way ci xalam way ci koora way ci sabar te loolu du fi jug ba ilaa yawmi boo xoolee suñu papa Samba Jabare dem na ba nekk mag day yor xalamam mhm. alaaji Mansour mbay ba léegi ñu ngi koy dékk micro mhm. te mag la comprendre nga parce que ñooñu dañu am traditionnel man nag dama jàng traditionnel moo tax moment bi même boo gisul Yves Niang mi ngi ci benn roq di bay waaram noonu la demee may loolu mais eh, yamuloo rek ci traditionnel parce que man dama gis nii danga nga def benn euh, genre maanaam euh, jóge fii dem fële. Mhm. mooy ñu ngi la xam ci musique mba moderne ak traditionnelle. Mhm. ba ci yàgg nga jékki-jékki démarqué génnee album boo xamante ne. sonorité yëpp a ngi ci. dëgg la album boo xam ne daanaka mën nañu wax ni album dimension internationale la am. Air Afrique album Air Afrique. waaw cest à bi nga bi nga ci yow bi ngay génnee loolu nit ñi xamuñu la woon ci loolu. dëgg la c'est-à-dire bëggoon nañu xam comment vous est venu l'idée nan nga xalaatee loolu ak lan moo la pousse ci nga euh, euh, wàcc mbalax mi. dem génne ci loolu waaw li ma ci poussé. Mm-hmm. dama dem ay festival yoo xam ne kenn ma ci woon mais ma dem seetaan. <coughs> bi ma seetaanee gis maliens yi gis guinéens yi gis burkinabé gis ivoiriens yi. Mm-hmm. ñu fay évoluer mu leer ma ne ñii li ñuy def dàquñu ma ko. te dàquñu ko suma waa dëkk. Mhm. mais façon musique bii mooy dem ci festival yi bi ma ñëwee nag ma dem gëstu ji ma dem centre culturel français toog di xalaat. Mhm. far gis fa photo Matador. Mhm. gisee photo Matador ma ne mais kii su ma ko seetee li ma bëgg mën naa ko am ndax xam naa ne kii am na oreille musicale. Matador rappeur Matador rappeur. ma dem complexe ba waxtaan ak moom ni ko dama bëgg a def wóol musique. te il faut ngeen jàppale ma ci texte yi parce que fa am ay texte yu fay dugg ak ak ak bitu musique yi ñu tëj ma trois ans. <laughs> waaw trois ans lañ ma téye complexe ba. di ma jàngal yeneen façon way yeneen façon musique. boo dee xool am na benn euh, clip laa ci génne gum. Mhm. muy xaalis. parce que wol musique boo ci duggee xoolal Ismaël Lo ba léegi attaaya la ñuy teg. Mhm. te attaaya yàgg na parce que wol musique boo ci duggee même boo amee benn son boo xam ne def na tabaa rek jarul sax ngay sonnati. parce que mhm. mën nga dund ak moom durant carrière bi nga nekk yëpp. gars yi bu ñu ko mën a teg ko mooy clip bu xaalis comprendre nga après ñu ñu programmé ko Yves Niang xaalis ñu xool ñu xool beneen Yves Niang ma dem fa nag gars yi dugal ma ci yeneen sonorité yu garaaw def naa fa jazz def fa blues def fa afro def fa afro mandeng mhm. comprendre nga def fa lu ne garder ko nag muy benn produit boo xam maa ngi ko garder di ci liggéey ci ay endroit yoo xam ni nit ñi sax <laughs> parce que daaw boo dee xool avant décembre daaw def naa mbuur presque sept mois tout à sept mois def naa ko mbir di liggéey di jouer ci boîte de nuit yi hôtel yi restaurant yi mu mu dugal ci man leneen hmm. bokkut ak nag mbalax bi nga xam ne moom la ñu ma xamee ak traditionnel bi ma jàng ak yooyu moo tax da ngay nga bañ a gis Yves Niang mhm. mi ngi lijjanti bagage ci suuf tout à ko gis ci ci ci ci ci ci maanaam yaa ngi ciy génn gars yi ñu ngi la ciy wuy si comme niñ ko euh, xalaatee woon. boo ma xooloon ni xam ne may ñëw lépp ma dépense. waaw <laughs> macha allah. Ah, ah ah yow Alioune Mbaye. am nga xaalis léegi. <laughs> Ah, non mais maa ngi gën sama bopp. qualité bu raache yi dafa nekk jeune boo ko sax xamee maa ngi ci doon ñëw nag maa ngi ci laa doon ñëw. kon euh, public boobu jaaw bee génn rek waaye maa ngi <laughs> li gis. mais il faut dafa mel ni public boobu moo gën a dox. ah moo gën a dox. public boobu. Ah. daf lay indi leneen. d'accord. parce que di nga ci gis ay nit yoo xam ne vingt heures la ñuy génn seen kër. ay personnalité ay personnalité. Mhm. fekk la ngay way vingt une heures nga commencé zéro heure nga pare. Mhm. tout avant zéro heure nga pare. Mhm. di mën a dellu sa kër di nga mën a reer di nga mën a julli tëdd nelaw boo xëyee doxee li ngay doxee. c'est bien organisé. waaw waaw. nag ñu am personnalité ñoo lay sétance. booy joué mën nañ sax bañ may booy way ci kaw chaîne bi nii mais boo wàccee. boo leen nuyoo rek ñu jël lu baax jox la dimbale la. ok ba pare da nga am benn benn benn connaissance boo xam ne numéro téléphone yi nga ciy am ay personnalité da ngay a gagner say affaire te doo ci sonn te musique boobu moo personnalité daal. Mm. moo tax nga bàyyi ñu quoi ñun ahlum. bàyyi ma leen parce que maa ngi maa ngi maa ngi dëgmal bis xam nga. <laughs> public bu ne war nga leen fekk si jox leen dara boo ah, xoolee sama clip bu fël-fëlaale. Mhm. da gis Yves ci jacuzzi bi mu boo xoolee cas cas def afro. comprendre nga mm. soo xoolee xaalis maa ngi def blues. Mm-hmm. boo xoolee beneen musique maa ngi def mbalax bu làmb jotee barki dem làmb Modou Modou Lo ak booy Niang bi ñuy léewtoo man ak sama benn rakk Madiagne ñoo téye di way di way di way di way aatu réer na. parce que jàng nañ ko. yu mel yu bëri boo ko jàngee dafa jarul dafa jarul ay kii quoi xam nga jarul détail daal yaa ma gën a xam. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> yaa ma a xam. ngay def daal doo sonn. doo sonn à dire loolu moom mooy def particularité am par mm-hmm. rapport ak yenn mooy moom tout le temps mi ngi jéem a métamorphosé wu. di xool moom mooy def forum. Euh, euh, ñun demoon nañu ba yaakaar ne sax génn na carrément ci mbalax mi. sauf mu wootee waatee événement. muy sargal banlieue bi. te xam nañu événement boobu moom ëllu mbalax ñoo ko moom waaw waaw euh, defoon nga ko je pense bii mooy ñaata édition. non bii mooy première édition grande nuit de la banlieue. waaw parce que yàgg naa def ay tàkkusaanu Pikine. créer ay affaires. Mhm. mais dama créer nag grande nuit de la banlieue bii nag mooy première édition bi. ok le treize dañ ko waroon def nag mais ñi ngi jaale Alsaan Ngom. Alsaan Ngom macha allah oh. borom kër gi Alsaan Ngom dafa génn àdduna. ku jàppale musique ajuma bii paase. vraiment mu def lu bëri ci musique bi xam nga. def lu bëri ci salsa ñu ngi koy jaale Sénégal gépp sunu papa jooju moo ñu tette. Mhm. vraiment yàlla ko yàlla yërëm te yéexuñu bi jaay Seydina Muhammad loolu nag moo tax. comme kër gi nag ñoo ngi nee nañ ay liggéeykat lañ. mënuñ mhm. tëj boîte bi ndax foofu dafa dafa bëri ay place parce que boo dee xool Ravin am na cinq boîtes ci biir. Mhm. am na restaurant am na hôtel am na mooy xam nga kon bu ñu ko tëjee day xaw a métti si njabootam moo tax ñu ubbi ko mais man pousse naa date bi ba le 19 incha allah ah ok le 19 laa koy def mhm. di fa woo nag banlieue bépp nag waaw guddi gu mag la goo xam daal euh, du guddi gu ndaw mhm. nuit de la banlieue man ak munaas mi waxtaan nañ si mhm. xam nga waaw ñu koy waaj bëri nañ daal mais nag léegi le 19 la incha allah vendredi 19 janvier. sama benn xarit nee na naa la wax ni euh, bokkuloo ci ñi nga xamante ne dañoo am tur fàtte seen ginnaaw. Mm-hmm. mooy que Yves lu muy def ci lu rëy rek day delluwaat Pikine. Mm-hmm. waaw démb loolu la wax nee na ma waxal ma ko loolu. nee ko moom fàttewul ginnaawam ndax lépp lu muy def ci lu rëy rek day delluwaat Pikine ma ne ko nag ñoom euh, seetu naa ci seen kàddu ñoom pikinité la ñuy revendiquer mm. saa boo waxee rek ñoom ñu ne la ñun waa Pikine la ñu mm. c'est-à-dire c'est <laughs> mi ngi noonu dongoloo Xaadim Njaay c'est-à-dire loolu bëggoon nañu bëggoon nañu aussi euh, yow en tant que artiste bu mag euh, ban appel ngay lancé ci loolu ci jeune artistes yi nga xamante ne tey bu ñu amee ñaari son yu cartonné rek ñu génn fi ñu dëkk dem dëkki feneen wala ñu fàtte seen ginnaaw waaw mais xam nga euh, artiste li ndongo doon wax naan doolay jën ndox. Mhm. doolay waykat public. dëgg na tey jii boo dëkkee ci banlieue. ak mhm. foo mënti dëkk sax. Mhm. même boo dëkkee dakaar plateau boo leen bàyyee ñàkk lu bëri. parce que xar du bàyyi géttam. te banlieue bi sens la pour borom tur dëkk fa. ndax borom tur dafay soxla mbooloo. te mbooloo bi yaa ngi koy amee ci fi nga dëkk. kon bu fekkee loo am lu baax nga yóbbu ko fa nga dëkk. Mm-hmm. mais boo xewlee nga koy gis. Mm-hmm. sama guddi gii ma jëm nii yàlla dogal na wax dëgg fa yàlla sama xel dal na ci. Mm-hmm. bu doon le treize damay tëdd nelaw le 19 bi dem bi ma lancé waatee message dina le 19 bi gars yi dañu ma amul benn problème ñu ngi koy préparé. parce que nit ki amul lu fi nga dëkk. man nag Dakar Plateau laa juddoo yàlla dogal na loolu. mais nag Pikine laa yaroo fa laa màggee fa laa lépp. di nuyu nag waa Louga ndax mooy sama cosaan. Mm-hmm. mais xam naa ne Pikine moom def naa fa loo xam ne su ma nee des fois Dakar Plateau laa juddoo sax ñu ne ma yow bu ñu sonal bu ñu sonal waay. mais boo gisee ma commencé di ko wax léegi. Mm-hmm. waa Dakar Plateau dañuy kaas. fu ma dem ñu ne ma yow da nga naan Pikine nga juddoo juddoo woo Pikine set nañu ba taay nga naan Pikine nga juddoo te juddoo woo Pikine. Mm-hmm. mais loolu bi may doog a jug daa doon wax ne Pikine laa juddoo. <laughs> <laughs> parce que boobu Pikine boobu xam nga commencé woon nañ xam nga léeg-léeg laa. bëgguma sax xam nga Pikine ñoom dañoo dañoo solidaire. Ah. boo nee sax Malika laa juróom ñu mel mais nag léegi nag mm. àdduna am solo. xam na Dakar Plateau laa juddoo. Mm. mais nag Pikine laa yoroo fa laa màggee mm. doomu Pikine laa waa mi ngi noonu mais xam naan daal am fa nga dëkk fonk leen am na solo lool. ndax ko xool ci mbëru làmb yi. ñu leen fay ay million du dóorante bi rek. déedéet bi ñuy duy ba mu fees xam nga arena bi ku ko duy. Euh, arène nationale bi. Mhm. ku ko duy ba mu fees kooku mbër nga. du dëgg mhm. kon kon te loolu fonk fi nga dëkk. ak bëgg fi nga dëkk téye leen moom moo koy maye. Mhm. waaw loolu la quoi. ok euh, en parlant d'ailleurs même de arène nationale euh, man la wax ni pourquoi euh, maanaam yéen bu ngeen wootee maanaam ñoom li ñu am. mbër yi. waaw yéen war ngeen mën a am loolu. Mm-hmm. parce que tey arène nationale ku ne xam na ne ay milliers de places day def. Mm-hmm. parfois tam nga gis artiste boo xamante ne dafay fiefam bu wootee. Mm-hmm. gars yi du duñu duñu du duñu maanaam duñ ko support comme ni ñu ko war a supporter. lan mooy indi loolu en général parce que Yves war na mën a woote Esplanade Grand Théâtre. mais loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg. lan mooy problème bi. mais euh, loolu noonu su ko public bi deful. yow yaa ko war a liggéeyal sa bopp. ci artiste bi donc la war a doon. artiste bi d' accord. boo dee xool lu mel ni grand théâtre ci biir 1800 places la. Mhm. doomu aadama bi ne fi nga dëkk ay junni junni nit ñoo fay. dëgg neexul. loo xam ne matul kër gu ne bu fa ñaar génnee. bu fa ñaar génnee mais artiste bi nag moo koy liggéey. parce que yàq say nelaw. Mhm. xam nga jug dem wuy si nit. du jug rek dem ni rek sol sa benn t-shirt dem. jug nit ñi dañ koy préparé. dafa laaj moyen sax dafa laaj ay moyen dem beeg dikk bi. dem bi da ngay dem xotti ji yére. Mm-hmm. jëndi dàll jëndi greffage. sagal ko daal sagal ko sagal ko salon yii xale yi buñ fa duggee pour defar seen kanam est-ce que xam nga est-ce que mille trente mille la. ah bon waaw jug moo métti. Mm. kii jug léegi dina léegi benn cent cinquante mille pour ñëwal la dem ñaw lu ji def ba pare du nelaw fu na mu dugg fa. Mm. loolu nag pour nga am ci benn dix personnes day jafe. Mm. mais li tax nga am ko mooy nga jug fonk leen di leen fréquenter. bu ñu la nga ñëw bu ñu amee dëj nga ñëw. bu ñu amee ngénte nga ñëw bu ñu amee ceet nga ñëw. di leen woo téléphone di leen nemmeeku nga yëg leen. Mm-hmm. loolu mooy tax boo wootee nga nit ñi mën a génn. d'accord parce que jug yombul. jug jug ñeent fukki junni la wala juróom fukki junni. su <laughs> <laughs> métti jigéen ñi <laughs> loolu la quoi. Mm-hmm. en tout cas euh, ñu ngi lay jaajëfal Yves bu baax a baax euh, donc euh, c'est vrai que temps bi ñuy xoj mais euh, toujours ñu accentué wu rek ci euh, programme bi nga xamante ne moom nga dëgmal parce que man toog naa benn moment dégg bon wootewuloo woote bu mag. Mhm. moo bi ma déggaatee ni woote nga. Mhm. ma ne gaynde gi jugaat na. te moom xam na moom dafa mën bis. waaw moom bariwul li muy woote te boo demee dafa fekk mbooloo. cest à kañ nga préparé événement bi ndax da nga toog ci 2024 bi nga ne naa song comme kii la. wala euh, c'était bien planifié non koy def. Hmm. dama génn neuf single. ok. ku ne. dama génn neuf single xool kilifa yi nekk ci ah. banlieue bi. ku ne nga way ko waaw. ma defal leen single gunge leen. Hmm. kii mi ngi ciy tudd léegi ku baax muy Ablaye hmm. Timbo. ak Modou Gueye. Leya Lat Diop. dégg naa Lat morsoom génnagul Amadou Diarra. Amadou Diarra bu Pikine Amadou Diarra maire Pikine waa Pikine yi quoi. Isaaxa comme Isaaxa Diop ma defal leen ay single. léegi ku def lu mel noonu di ci invité wala Ablaye Diop maire ginnaaw raay. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. vraiment yaya aan mm-hmm. léegi ñooñu boo doon defalee lu mel noonu soo wootee dina ñëw seen mbooloo dina ñëw. boo booleeg man samay nit. te élection yi mi ngi ñëw. te artiste li ko war mooy gunge sportif. gunge comédien. gunge artiste bi nga xam ne scénariste bi nga xam ne mi ngi def film. nga defal ko morceau. mbëru làmb bi bëri nga defal ko benn morceau way ko comprendre nga. loolu la artiste jar jariñ mooy di gunge ay nawleem. donc xaalis ngeen di investir ci studio yi. waaw ci événement yi ngeen koy récupérer événement yi waaw événement yi nag boo la woowee ñoom dinañ la wusi d'accord te dinañ la jàppale. ok parce que Sénégal xam nga àdduna lépp politique la. Mhm. waaw loolu la quoi. parce que mais maa ngi profité nag vraiment di woo kilifa yi ma tuddee guddi gi nii. Mhm. dama leen way dañ ma yàgg ji teraanga ma delloo leen njukkal. Mhm. léegi nag di leen woo ci bis bi parce que ñoom ñoo mën a taaral bis bi mhm. parce que soo nee niw de la banlieue rek waa banlieue xale yi mën nañ jukk nañu mën nañ jug parce xam nañ ni guddik banlieue la mais bu ñu ñëwee jàppale dooleel la dañ lay taaral day taaral sa bis suba nga mën a dem beneen place bu mag mhm. dina la suba nga mën a organiser ay événements yu bëri parce que nag fii ñoom buñ ci jàppal du baax parce que mhm. ñoom la yàlla dénk teraanga ji xam nga léegi nag yow la war sa baat rek nga am mooy dugg ci nit ñi saafanteeg ñoom koo mën a defal teraanga sa baat nga defal ko boo xewlee bis mu ñëw jàppale la. Mm-hmm. waaw loolu rek la parce loolu moo fiy génn moo fiy génn nit ñi léegi. en tout cas investissement la boo xamante ne c'est pas évident mën nga ko récupérer comme mën nga ko bañ a récupérer. parce que yomb la parce que morceau bu ne dañ frais xaalis. a wax nii studio ngay dugg frais bu bari. après nga woote buñ la wuy suwul da jaar yara. yàlla <laughs> ci ci ci loolu sax euh, cool damay gis ay woyam tout temps <laughs> thématique lay doon daf ci wut ay thèmes yu am solo yu méngoog jamono. Mhm. yamoo ci mbëggeel tout le temps comme ni ko xale yi di defee. léegi léegi dama cee boole jàngi ci yaay way si suñu yaay mais way bu doy waar way bu neex macha allah waaw xam nga àdduna noonu la li may wax rek musique mhm. il faut nga jàng façon musique yu bëri mhm. soo waaye ay thème baax na waaye ay maam baax na way sëriñ si parce que sëriñ boo way ay taalibeem bëgg la dëgg la koo way tey jii yow moo wayee comme yaa ngi ci technique <laughs> soo wayee kuul way ay maamam déjà am nga famem yëpp d' accord nga. Mm. soo wayee benn thème àdduna yëpp mën nañ cee jëriñu. waaw mm. soo wayee mbëri làmb yi. Mm-hmm. ñoom ñëpp rek seen dara day tàng. Mm-hmm. comprendre nga te damay de ñu naan woy bu euh, yeetewul ay naxaate la. ay naxaate la bu yeetewul ay naxaate la waaw loolu wax la rek parce que am na way yoo xam ne tagg la. Mm. d' accord tagg la rek tagg la nii quoi nga tagg nit ki comprendre nga. Mm-hmm. parce suñu papa Thione Seck moo wax loolu. dëgg la nag. mais boo dee xool beneen façon it am na ñeneen ñu ñeneen ñoo xam ne mën nañ ko gisal neneen mm-hmm. parce que nga way way boo xam ni diglewul yeete la yeetewul mais am na am na ñu muy jariñ d'accord parce que boo dee xool euh, tey ñag yi ñu ngi way ay morceaux yoo xam ne bu ñuy boo tey bu wootee clip bi ay fonanteeg ay deux pièces kese la ñuy sol yor seen chicha yooyu xam nga yooyu diglewul kii yeetewul mais ñoom ñu ngi ciy ger seen plaisir mm. parce que seen ah, mais fii quoi la bëgg a wax Sénégal waaw waaw waaw fii ci <laughs> man d'accord naa ci tagg yooyu noonu parce que Yves tey ki nga xool bay tag ko way ko mm-hmm. pour man référence da nga koy wane dëgg la loolu dafa am njëriñ. non parce que kenn xool ku bon nga di ko tagg. très bien baax la ñuy tagg. Mhm. loolu la quoi. ma ci ma ciy nuyuwaale sama sama sama sang Alassane Mbaye. <laughs> moom ma gën a inspiré naa ci tagg gi la kañ la doon sa sang. <laughs> non yàgg na. <laughs> Ah. Alassane ñoo bokk maam maam ah bon. barke Seydina Mohamed. Alassane ñoo bokk maam. am nga sang bu baax. ba pare mu di ma jox samay sagar njaam yu baax. ah ma maa la ko wax. macha am na solo. moom Alassane mbay ak Cheikh Diop mbay suñ ñetti maam bokk benn baay. musuma xam loolu. barke d'accord bu dee am na programme ak euh, projet yi ñu wax ci. Euh, programme numéro 19 avant waaw projet euh, damay damay laaj moom ah, parce que temps yi gis nañ ko ci làmb ji loo xamante ni gisuñu ko ci woon mu ñëw def ci wàcc lu am solo. Mm-hmm. adduna yëpp dégloo ko ak cœur ouvert. Mm-hmm. kon mun nañ ko xaar mun nañ xaar Yves Niang ci làmb ji chaque jour mu innové di di ñëw ci làmb ji tamit kañ la ñuy xaar dem Grand Théâtre fekk fa Yves mu fees dell incha allah parce que ñun bëgg nañ la gunge Grand Théâtre. waaw yi moom. moment bi il faut ñu gis ma. Mhm. parce que dafa am koo xam ne moo ñu jàngal way. muy dul sekk. du yi. te damay toog di ko namm ci làmb ji. ndeysaan ma daan dem maam ndongolo di ko fekk ci ay place yu bëri. moom mhm. Mbenga. Mhm. ñuy way ñu leen di aw. mais tey jii ndongoloo dem na. Mbenga dem na du sekk dem na. léegi su ma toogee di seetaan làmb. damay namm voix yooyu te man xam naa ne loolu ñu faran def. man mhm. naa ko. Mhm. macha barki dem may dem ci làmb Modou Lo Boy Niang bi sama kër laa toog bi Modou Lo di bàkku. Mhm. maa ngi toog di seetaan télé. bi bàkku bi jeexee bi li li ma jugal dem xaw ma ko sax. dërët. ma jékki-jékki rek ñetti ñetti escalier yi. dem arène national fekk Boy Niang di bàkku. bi ñu commencé bëre ma jël micro bi waaye aatu réer na. Mhm. macha allah comprendre nga ñëpp di fàttaliku du sekk. wallaay yooyu xam nga est-ce que mën nañu may loolu. mais baat bi moo xaw a dee dama jógee dama doon répété dem ba 5 heures matin. Ah, d'accord boo déggee may wax xam sama baat dafa dee xam nga. Ah. boo ko laajul woon sax madame Mbacke laaj. ba 5 heures matin. kuul mais moom a yee madame Mbacke damay laaj de kuul moom a yee <laughs> te mu ne may ñu dara. ba pare ba pare non mais mais peut-être des yéen xam nga nu ñu def <laughs> wax na yow maa ngi ko doon programme ak yow. acoustique boo xam ne. parce que mm. madame Mbacke foog moo waroon ko li may joué ci <laughs> d'accord incha boo xam ne ñu indi trois instruments rek. ma defal leen li may joué ci acoustique. waaw su ma woowee muy woy mbalax. dëgg yow ràññee nañ la ci macha waaw vraiment xam nañu dafa mën a woy. <laughs> xam nga jeune talent ñu leen di testé macha bu dee am nga ay projet yoo xamante ni sa kanam xëy na nga baaxee ñu ko euh, daanaka waxtu bi jeex na. waaw projet yi moom euh, nuit de la banlieue bi moo ci n nii maman bi nii mm-hmm. mais euh, am naa projet wu def cent morceaux. cent morceaux. yeneen cent morceaux de Yves Niang mhm. déjà génneegum naa ci neuf. lu hmm. may bañ nit ñi di wax naan Yves Niang sax du mu sonal ñoog ay way te pourtant nit ñaa ngi génne ay. mu des 91. waaw wax génne waaw am projet def cent morceaux. léegi nit ñi sénégalais yi. bu ñu gis Yves Niang di génn ay morceaux rek ñu ni Yves Niang da leen a dafa bëri wax Sambata Ndiaye Birame Diop parce <laughs> que sénégalais. Hmm. boo deful ñu ni pourquoi deful. waaw soo defee ñu ni mi ngi ñuy lakkal. kii <laughs> Yves de. xam nga fu may waxee madame Mbacke. mais dama am projet def 100 morceaux te incha allah. ci lancé boobu laa nekk. 100 morceaux yi génneegum naa ci 9.

di wax ni guddi gi rek. waaw ñu bàyyi ko xel. le hmm. le 19 ah. le 19 janvier daal date bi ma waxoon le janvier. Hmm. dama ko pousse ba le 19 vendredi 19 janvier. d' accord rafet naa club di woo nag Sénégal gépp hmm. rawatina nag kilifa yi nga xam ni. ñoo nekk ci banlieue bi. ku mel ni Ablaye Timbo maa ngi koy woo. d' accord di woo Ablaye Diop meeru ginnaaw raay. vraiment Isaaxa Yaya Anne Modou Gueye ak Jabaram. Fatou Faye. d' accord d' accord arko yéen a ci biir. d' accord allah. merci Yves Mbaye maam laay vraiment waaw allah Sénégal gépp nañu ñëw dooleel Yves Niang sañ si ba mu neex xëy ñu neex jigéen ñi. voilà ñëw dooleel ki am da muy Yves Niang merci ñu jaajëfal la ah, remercier Mounas remercier euh, Koul ak euh, suñu gan bi la di Aliou. donc euh, remercier Cheikh Tidiane Gomis ak Alioune Sow mais aussi Gomis pour la coordination Adjaratou Penda Diallo Gueye merci.